Euh, idée bu nice la ñu wax ko mais xam euh, dans dans toute chose entre le dire et le faire il y a une ligne abyssale Je ne kan gu si moo ci nekk mhm. entre li ngay wax ak li ngay def parce que ñun depuis 60 ans, on est dans le franc CFA avec les pays ko bokkal mhm. tey CFA euh, peut-être ku euh, Sénégal. dans mhm. le Sénégal jël Côte d'Ivoire. Mhm. daanaka ñoo yor li ci mhm. n'est-ce pas. tey déjà le le gouverneur de la BCEAO tout le temps c'est un Ivoirien. les gens ne se posent pas ces questions-là. pourquoi le gouverneur de la BCEAO toujours c'est un Ivoirien. parce que c'est fabuleux, c'est un solo. le Côte d'Ivoire dafa am lu un lu mu lu bari. à partir Côte d'Ivoire et Sénégal. Donc, nag wax nañu projet bi ne. dañu bëgg changer li nga xam monnaie. mais xoolal yeneen dëkk yi ñu wër te am seen monnaie bopp hmm. fu ñu toll te aussi CFA bi lan moo ko garantir xam nga hmm. parfois su ma déggee waxi CFA sama xel day dem ci avec les accords de Bretton Woods li nga xam ni ñëpp jàng nañ ko hmm. on ci li nga xam ne moo garantir xaalis bi euh, à l'or par rapport à l'or xam nga dama naan sax xëy foofu américains yi xaw nañu nax ba tey àddina fi mu toll tey ak euh, dollar bi ak euro bi fi ñu toll mais il faut ñu waxtaanee ko d'accord il faut ñu waxtaanee ko fi ñu toll nag pour dem ak suñu monnaie propre Euh, du ma ne dina am mm-hmm. du ma ne du am autant pour moi mm-hmm. mais du yomb mm-hmm. il faut que ñu toog à tête reposée parce que tamit boo ko bëggee boo ko bëggee jëlee ci CFA bi yóbbu ko ci beneen monnaie te àndoo ko peut-être euh, la sous-région mooy ouest africaine bi CEDEAO parce que boo xam ne peut-être zone économique bi lay doon tey boo xoolee carte carte d'identité yi on te parle de carte d'identité CEDEAO mais tey peut-être parler euh, aller dans ce sens là du côté CEDEAO dina am solo parce que boo demee en Afrique australe ñu ci am na ñoo xam ni ñoo bokk oui donc loolu aussi voilà donc Fall ma ñëw si yow nga tënk rek parce que rési ñu ngi may wax ne 10 minutes 10 10 minutes la ñu may nga tënk rek par rapport à li nga xam naa côté Europe boobu boo si laalul prochaine fois dinañ si laal parce que <laughs> côté galas rek la ñuy wax chaque jour dañuy laal domaine économique. dañ si gën a yaatal donc nga ñëw si euh, thème rek le Sénégal cerveau du CFA. waaw xam nga Sénégal dafa constituer benn euh, point essentiel avec le CFA parce que

dina une puissance par rapport aux autres monnaies. Mm. comprendre mm. tey boo xoolee tey comme li ko qui vous bi waxee or bi ngay dégg mais damay wax secret France ñetti dëkk ñoo ko def le deuxième pays détenant la réserve d'or mondiale Sénégal c'est là bokk. Mm-hmm. Mm-hmm. mais lu ko changement de monnaie dem monnaie loolu c'est bien beau mais li gën a am sens dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mën nañ créer beneen monnaie surtout dee ko CFA mais mécanisme yi nga xam ne mooy véhiculer CFA. Mm-hmm. la gars yi war a réviser. d'accord mm-hmm. nga xam ne avantage bi day dellu sur les peuples africains mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo CFA boobu ñi ko seexoo zone muy zone CEDEAO. boobu noonu ñu nekk. te loolu moo am solo indil nañu fi projet nee ECO te les mécanismes sont les mêmes. kon loolu ban njëriñ la appellation kese la mooy ñëw. léegi suñ ko bëggee def nag. Je def faire une démarche. avant France. Mhm. dem sous-région rencontrer président mhm. le cas de la CDAO, il y refusé. mais il y' a beaucoup de questions non dites qui se trouvent. D'ailleurs, mhm. il faut que gars mettre à nu nit ñi xam. procédé pour nous a jógee gis nga marché local bu am regrouper les puissances africaines comme ay Nigeria, Afrique du Sud indi indiens. man mënaguma xalaat ne Sénégal mën na créer monnaie boppam wala mu génn CFA. d'accord parce que day miti. Mhm. dinañ demande benn reconstruction interne. d'accord day miti si ñun. te amuñu benn pilier boo xam ne moo ñu mën a téye comme garant. d'accord durant boobu noonu ñu koy def ñu mën ci nekk. d'accord am na solo mu ngoog euh, Ousmane mu ñëw si weer nga tënk par rapport ak li nga xam ni mooy euh, wàllum euh, monnaie local Effectivement, peut-être pratiquement euh, la majeure partie a été dit par euh, mes prédécesseurs. Mhm. Euh, le Sénégal, cerveau du CFA. Bon, changement de monnaie, ça peut être, mais c'est un processus, mhm. comme on l'a dit, mhm. avec les mécanismes et autres. On peut comprendre qu'on est, qu'on est en train de poser des bases. Parce que quand le président... parce qu'il faut savoir lire entre les lits. Euh, quand le président fait ses, ses, dix premiers voyages, il fait une diplomatie de voisinage. Mm. Il va dans les pays de proximité. Mm. Ça peut être une chose. Mm. est en ayant visité le Burkina et le Mali qui avaient tourné le dos à la France, on peut comprendre qu'il y a, y quelque chose qui est en train d'être posé. Maintenant, euh, sortir du CFA supposerait être autonome. Mm-hmm. Et quand on dit autonome, Aujourd'hui, euh, dans le courant du mois de juin, on a levé euh, un eurobond mmh. de 750 millions de dollars. Mmh. Euh, avec un taux d'intérêt de 7,5% pour une maturité de, 7 ans. on s'endette et on veut être autonome. Mmh. Donc c'est un peu utopique pour, la chose. Maintenant, tout ce qui peut être, ce serait bien, comme, l'a dit euh, Mouchefal, de revoir les mécanismes par rapport à ce CFA. Et euh, petit à petit, qu'on puisse aller vers euh, ce besoin-là qui est posé et dont on pense aujourd'hui que euh, c'est ce qui peut nous sortir du cadre de sous-développement qu'on est en train de faire le CFA reste euh, utilisable, c'est le domaine CDAO qui hmm. est là, on est, on est en train d'être utilisé. Et il faudra des moyens hein, et une étude solide hmm. pour pouvoir sortir de ce CFA-là et avoir sa monnaie, monnaie personnelle. Oui. Voilà, c'est un peu... Euh, par rapport à l'autonomie euh, financière, Bon, man, man, man, man, <laughs> je ne comprends pas, je ne comprends pas sénégalais, parce qu'un jour, dama si dama si werante werante bu métti ak benn kii mu ne ma soo jugee fekk ma doon dem Mauritanie quoi. Mm-hmm. mu ne ma soo jugee Sénégal boo yoree un million boo demee wecceek ko Mauritanie sax xaalis lañ lay jox ça m'a fait rire quoi. Mm-hmm. léegi ñu werante ma ne ko au moins ñoom am nañ seen monnaie boobu. Mm-hmm. muy la Mauritanie la Guinée. Gambie Gambie au moins am nañ seen kii bopp quoi. mais man comme li Cissé wax rek man bokk. waxuma du am mais boog bon je reste sur ma faim quoi.